ci lañu ñu bàyyi ko nii léegi muy CRD bi ñu doon defal ak njaboot gi ak bokk yi ak chef de service yi kilifa yi mu màcc jëm ci wàllu gàmmu Jaksaaw édition 2020 te ñu jàpp ko ci mbaaxu yàlla juróom-ñetti fan ci wéru février bi di ñëw insha allah taala ak bés bi yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm mboolem édition yi ma sa weesu yëpp sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax rawatina nag édition bi xam nañ bu baax tamit ne ci at bu bees lañu tàmbali ci wàllu budget yeeg yu bare bare bari waaye ñu ngi ñaan yàlla service bu mu ci ti doon moyen yi nga bëgg yàlla na la ko yàlla màngal mu yomb la ci biir yomb la ci biti ndax solicitation yi bëri na xew-xew yi bëri na damay wax ni toujours Sénégal moom ca dëgg-dëgg ameel nañ leen njukkal dem nañu fu bari mais état Sénégal ni muy doxale ak ëttu këru diine ji gisuma beneen état bu koy doxalee noonu lu ñu man dinañ ko def lu ñu mënul sax dinañ jéem taxaw ànd ko ak yow waaw ñu yóbbantewaat la nag ay nuyoo ak i ziyaar ak i cant ak ngërëm ci ministre de l'intérieur mu continuer dem ba ci président de la république alxaaji Macky Sall ak mbooleem jëwriñam yi nga xamante ni tànn na leen woolu leen ngir ñu jàppale ko taxawu liggéey bi nga xamante ni réew mi soxla na ko askan wi bëgg na ko yàlla na leen ci yàlla jàppale yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi yalla yàlla doli jamu ci sous région bi fu safara di tak tamit yalla ko yàlla fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam